Euh, bu judiciaire bi la ñu ba tax na nag lu ni mel ñu bari bari nag xaaroon nañu ko ndaxte kenn ci ki nga xam ne ni jamono yu weesu rek la ñu dégg turam di wuyoo ci turu juge Amath Sy moom nag jamono ji la coow li topp ci wàllum changement googee ndaxte dañu ko jëlee euh, ci fi nga xam ne ni fa la nekkoon dal di koy nag yóbbu feneen foo xam ne ni daanaka ñu bari bari ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk sénégalais rafetlu wuñu ko ginnaaw ba ñu ko jëlee ci tribunal bu Ndakaaru moom nag dañu ko daal di nommé président du tribunal de grande instance bu Pikine ak Géejawaay moom moom nga xam ne ni nag moom mooy wuyoo euh, ci euh, tuuru euh, Amart Sy moom moo nekkoon nag ki nga xam ne moom moo yor dossier wu Adji Sarr ak Ousmane Sonko ndax mi ngi nekke woon ci troisième chambre correctionnelle bu Ndakaaru ba tax na daal moom magistrat boobu daal dinañ koy rek xëy nommé te it dañuy fàttali rek ne moom moomee di juge Amart Sy ñu ngi ko xamee nag ci affaire Sweet Beauté yëkkati bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Adji saar bu dul woon loolee daal kenn mësul dégg turam kenn mësu koo xam waaye tam bi euh, dossier boobu doxee ba tab bi ci ay loxoom ci la ñu commencé nag di euh, wéyandi di wax turam ci les place publiques ak fépp fooy xool ak ci réseaux sociaux yeneen ba tax na daal li nga xam ne nii rek euh, moom mooy wàllu woowee ñu bari bari nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk yi daal duñu ñu koy rafetlu ndax changement bu gaaw boobee mbir mi ba noppi nag ci la ñu bari nag daal di koy xëy eh, ne rek mbir mi du dëgg ñu daal nag eh, wax ne boobu li information bu eh, fausse la maanaam dara du ci dëgg waaye itam lu ni mel tax na nag ba ñu bari bari tam jàpp ne rek dañu ko daal di dëggal ndax les échos ñoom ñoom ñoo ci xëy ci seen xët bu njëkk daal di xam ne rek ne lu ni mel ay dëgg yu wér péng la te it ñu ngi xam ne rek ne ki nga xam ne moom moo di le juge Amat si dafa doon jot ay menaces de mort moom ak ab famille ba tax na daal daal lu ni mel dina ko daal di arrangé bu baax a baax a baax ginnaaw nag ba ñu démentiré boobu la information loolu la ci euh, les échos euh, wax ba tax na daal euh, famille am ak moom moomee xëy na dina ñu jaaree sant ci lu ni mel bu baax a baax ba tax na nomination boobee nga xam ne am na ko ci tribunal grande instance bu Pikine ak bu Géejawaay dina ko mën a gën a éloigné maanaam dina ko soreel ak affaire Sweet Beauty bi nga xam ne nii ku ne xam ne passion la ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy sénégalais politique yi ndax euh, ku yëy yàbbi ci waaye itam euh, képp ku xëy ci ngay wax rawatina doomu Sénégal yi nga xam ne boobu boobule dossier da leen di ñor ak fan lay mujj mu naroon a mujj ci loxo moom juge Ahmed euh, Sy nag yàlla daal di ko ci musal bu baax a baax ndax jëlewoon nañ ko ci tribunal régional bu Ndakaaru bi nga xam ne dossier bi foofu la nekkoon tuxal ko ca tribunal grande instance bu pikin ak bu Géejawaay moom moomee nag ginnaaw ay menaces yu mu doon jot moom akub fameem waaye itam ci ay décision yoo xam ne rek dañu koy retenir ba tax na wàllum euh, attention publique yeneen yu ñu ko mën a xaare daal moom dina fekk ne boobule dossier yàlla musal na ko ci bu baax a baax a baax ci loolee itam ñuy rek toppaat li nga xam ne nii moom mooy changement bi nga xam ne nii gis nañ ko wala sax nemmeeku nañu ko ci architecture judiciaire bi maanaam ni justice di tëddee ci Sénégal ku ci nekk ci ndombal tànk moo xam ci magistra yi ndombal tànk ba nga nekk koon mën nañ li fa jële à tout moment ndax gis nañ yeneen ci ay ndombal tànk yoo xam ne ni ci ay magistrat la fii ci Sénégal